السلام عليكم ورحمة الله بكين لن يجي لن زيار لن بلحق جان برب سبحان تعالى بولن جقا حديث طيب دفع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا صحيح مسلم يرنتبي صلى الله عليه وسلم دفع وقت حديث منه جلي جنا جفي جلي ci naafeq yi mooy waxtu gee ak waxtu fajar man waaye bu ñu xamoon li ci nekk kon boo de dañ bu ñuy raam dem sax dinañu raam dem julli ji ko ci mbooloo ma xadis bi mu ngi saxi muslim defee jullik suba ak jullik gee ku am seetlu tuuti da ngay yëg ne waxtu suba da lay fekk ci ay nelaw yàlla bu mu tombeek jamonoy sedd nag bo léeg nga dégg ko ne man man maa yow fajar pourtant boo ko joxoon rendez-vous boo xamante ni dañ ko war a embaucher liggéey du du biddanti wala mu leer ko ni dafa war a jëlee xaalis banque waxtu nangam te banque bi day day fees bu bu teelu la dem du am place ba moytuwul xaalis bi du so jot du biddanti kon bu ne won ma yow fajar rek bakkanam moo ko moo ko tënk war a xeex ak boppam nag waaw moom ci boppam moo am problème ci boppam dafa war xeex moom xeex ak boppam pour loolu denc moom loolu bakkan la waxtu gee bu jotee it julli ca léeg-léeg sa yaram day diis yàlla mu la fekk ci ay waxtaan ak ñoom seen wala nga teel nga teel a reer wala yu demee noonu waaw foog jullit bi am yitte lool moo ko tax mooy tax mu may ko mu man dem julli julli gee waxtu wi julli ji ko ci mbooloo yonent sallallahu alayhi ñuy xamal ne naafiq buñ ko waxee mooy ñi nga xam ne yàlla di leen dig gis nañ ne ñoom ñoom ëllëg yàlla mu ngi leen dugal ca safara fa gën a jate fa gën a xóot foofu leen yàlla dugal leen ci yàlla musal yàlla yonent bi sallallahu alayhi ne nag ñi nga xam ni maanaam bokk na ci jikkoy naafeq ñi nga xam ni waxtu suba ak waxtu gee mënuñu koo julli ñooñu dañuy bokk ci naafeq yi moo tax mu ne waxtu yi gën a jafee julli ci naafeq naafeq yi mooy suba ak tisba ak ak gee waaw kon gis nga bu waxtu te fajar boo ko mënul julli rek mënuloo ko julle ci waxtoom waxtu gée it mënuloo ko julle ci waxtoom surtout ko julle ci mbooloom te amuloo benn gant yéega ni da ngay dugg ci biir naafiq googu bu ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waaye nag mu bu ñu xamoon li ci nekk ci ay ngëneel kon dinañu dem dem dabu ji ko maanaam dem julli ji ko julli ji ko ca jàkk ja loolu moo di tënku xadis bi qul qawli hada wa astaghfirullah al azim li wa lakum wassalaamu aleykum wa